Luk saar fukk ak juróom benn. Yeesu ay taalibeem. benn boroom alal moo amoon bëkk néeg bu ñu jiiñ ne dafay pasar pasaree alal ji. waaje woo ko ne ko li may dégg ci yow mooy lan leeralal ma ni nga liggéeye ak sama alal ndaxte dootoo nekkati sama bëkk néeg bëkk néeg bi di xalaat naan nu may def nag segam sama njaatige dafa may dàq ci liggéey bi mu ma joxoon dem bàyyi awma kàttanam yalwaani ruus naa ko xam naa ni may def ba su ma ñàkkee sama liggéey ay nit fat ma noonu mu daldi woolu kenn ku nekk ca ña ameeloon njaatigeem bor ka jëkka ñëw mu ne ko ñaata nga abeel sama njaatige mu ne ko téeméeri bidoŋi diwlinu oliw bëkk néeg ba ne ko sa kayit a ngi toogal fii gaaw te bind juróom fukk mu neeti keneen yow nag ñaata nga ko ameel mu ne ko téeméeri saakuy pepp bëkk néeg ba ne ko sa kayit a ngi bindal juróom ñett fukk njaatige ba nag daldi naw ni bëkk néeg bu njubloŋ boobu muuse woon ndaxte ñi bokk ci àddina ñoo gën a muus ci li ñu jote ci seen diggante ak seeni moroom baraw ñu bokk ci leeru yàlla yéesu teg ca ne maa ngi leen di wax lii sàkku leen ay xarit jaare ko ci alelu àddina ngir bu alal nekkatul ñu mën leen a fat ca dal yu sax ya nit ku maandu ci yëf néew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 yoonu musaa wi ak waxi yonent yi ñu ngi fi woon ba kere yaxe di ñëw la ko dale foofa nag yégle nañu xabaar bu baax bi ci nguuru yàlla te ñépp a ngi góor góorlu ngir dugg ci waaye nag asamaan si ak suuf si jóge fi moo gën a yomb randal wenn rëdd ci arafu yoonu musaa ku fase sa jabar ba noppi takk keneen njaaloo nga te ku takk jigéen ju jëkkëram fase njaaloo nga dafa amoon boroom alal ju sol yére yu rafet te jafe tey dund bis bu set dund gu neex fekk miskiin mu ñuy wax lasaar daan tëdd ci buntu këram fees dell ak ay góom te bu sañoon di lekk ci desiti ñam wi rot ci lekkukaayu boroom alal ji xaj sax daanu nu ñëw di mar ay góomam noonu miskiin ma dee malaaka yu yóbbu ko ca wetu Ibrahima boroom alal ja itam dee ñu suul ko bi ñu koy mbugal ca safara mu téen seen fu sori Ibrahima ak lasaar ci wetam noonu mu yuuxu ne maam Ibrahima yërëm ma yabalal lasaar mu sëpp cetul baaraamam ci ndox seralal ma sama làmmiñ ndaxte maa ngi sonn lool ci safara si Ibrahima ne ko sama doom fàttalikul ne jot nga sa bànneex ci àddina fekk lasaar dëkk ci tiis looloo tax xolam sedd fii yow nag ngay sonn raxte dolli itam am na kàmb gu xóot suñu diggante ak yéen ba tax ñi bëgg a jóge fii jëm ci yéen walla ñi bëgg a jóge foofu jëm si ci nun duñu ko man noonu boroom alal ja ne kon nag maam maa ngi lay ñaan nga yebal lasaar ca sama kër baay ndaxte am naa fa juróomi rakk naleen leen artu ngir ñu bañ a ñëw ñoom itam ci barabu metit wii Ibrahima ne ko say doomu baay ñu ngeeg yoonu Musaa ak téere yonent yi nanu leen déggal boroom alal ja ne ko déedéet maam Ibrahima waaye su kenn dekkee dem ca ñoom dinañu tuub seeni bàkkaar waaye Ibrahima tontu ko ne suñu dégluwul Musaa ak yonent yi kon ku dekki sax du tax ñu gëm